mais tey nag dañoo ñëwoon doon wax ak euh, li nga xam ni que ni mooy sénégalais yi ci li nga xam ni moo moo ñu naqari ñun ñëpp muy ñàkk kàddu gi ñàkk kàddu ci réew mi ndax bu ñu xoolee sénégalais yi ñun ñëpp kenn amatul kàddu loolu moo taxoon nag ñu créé benn programme boo xam ni tuddee ko delloo baatu askan bi si askan bi ndax dañoo seetlu ñi nga xam ni que ni ñoom ñoo yore suñu kàddu dafa mel ni waxuñ ko ou bien jëmalewuñ ko ci askan bi nga xam ni que ni ñoom ñoo leen ko joxoon loolu moo taxoon tey ñu woolu presse bi ngir bëggoon cee wax suñu xalaat. xam nga tey jii Sénégal bi ñu falee président bi nga xam ni que nii moom moom lañ jiital ci réew mi moom moo war a liggéey mais képp kuy sénégalais dafa amoon kàdd pour wax mais dañoo xam ni que ni comme que ñun sénégalais ñun ñëpp mënuñu wax. ñu tànn ñoo xam ni que ne ñoom ñoo ñu war a représenter ñoom ñoo war a teewal askan bi ñoom ñoo war a saytu gouvernement bi ñoom ñoo war a xam suñu xaalis fi mu dugg ñu tànn ci sénégalais yooyu noonu pour ñoom ñu teewal ñu biir assemblée nekk suñu ay représentants du peuple ñu naan leen député du peuple mais malheureusement dañoo gis ni que ni tey suñu député yooyu noonu dafa mel ni représenté wuñu askan bi seen ay parti la ñu gën a représenté que askan bi leen faloon loolu moo tax nag ñun tey ñu jug di ko naqarlu di xeex pour que représentant yooyu noonu nga xam ne ñoom lañ jox suñu kàddu ngir askan bi ñu delloo si waat ko ci askanu Sénégal ni ñu ko bëgg a xeexee mooy que ni tey dañoo gis ne assemblée ñaari groupe moo fa nekk groupe bi ci njëkk mooy au pouvoir ñi nga xam ni ñoom ñooy gouverner yor gouvernement bi ak ñi nga xam ni que ni opposition lañ nekk boo xoolee ki yor gouvernement bi ñoom li ñuy gën a saytu ci ñoom lépp lu fa gouvernement bi indi dañ koy accepté ñi nga xam ni que ni dañuy opposé lépp lu fa opposition bi indi ñoom duñ ko nangu loolu moo tax nag ñun ñu bëgg indiwaat beneen groupe boo xam ni que ni day représenté askan bi te du bokk benn parti te du dem élection présidentielle pour xëccoo ji gouvernement bi loolu moo tax pour ñun askanu Sénégal pour ñu mën a gis suñu bopp ci gouvernement bi léegi ñun ci loolu dañu gis ni que ni suñu député yi tamit niñ leen di falee baaxul parce que soo xoolee tey dañuy jël dugal leen ci benn liste parti boo xam ne que ni parti ba ñoom ñoo leen tànn mais pas askan bi ñun nag suñu liste dañ ko bëgg a ubbi liste boo xam ne que ni askan département bu nekk ñoom ñooy tànnal seen bopp seen liste li ñuy nekk ci liste bi pour que ñooñu bu ñu demee ñu xam ne que ni dañoo am mission bu ñu leen dénk pour que mission wu askan bi la ñoom ñu xam ne que ni représenter peuple bi la ñu war a def mais pas parti bi wala am nga tey jii ñun fii Sénégal lu bëri dañ koy jaxase parce que tey jii ki nga xam ne que ni élection locale la jëm kooku dafay laaj budget sénégalais pour liggéeyal leen élection gouv euh, élection présidentielle kooku day laaj budget sénégalais pour liggéeyal leen mais élection euh, euh, législative kooku ñooñu pour pour ñiy teewal askan bi kese la ñun dañoo gis ni que ni askan bi ñàkk kàddu gi mu ñàkk kàddu moo tax ñuy reflet ñu ñuy ñuy xeex jëmale ko ci élection yooyu pour que askanu Sénégal am ñu yor seen kàddu askanu Sénégal am ñu leen di représenté mais élection locale yi teewul xam ni que ni ñoom la askan bi choisir pour ñu yor seen kàddu mais ñun duñ ci participer parce que ñun defuñu politique boobu ñun dañoo gis que ni askan bi rek dañoo ñàkk doole ci réew mi moo tax ñu leen di xeex dem xeex bëgg fas yéene dem xeexala ji leen fa nga xam ni que ni fan lañ leen war a teewalee nga nit ki bu ñu la joxee mission ba pare ne la lii nga war a liggéey te la nga war a liggéey liggéey ko da ngay da ngay am temps di def leneen leen leneen lu dut